صلاة الذي في كل لزهر وفي سفر أماني على ماهن مع الحبس وأسفر مريد من كل ليدريت له لهم سرورا متى ينتخ بمتي مطرون بسم الله من مريد لاي تامبلي دي واي مريد صادق بكاي نجي مريد دي دومي بامبا موم بلال شيخ عبد الله لاي بغا واي tuuti ci ay mbiram yu rëy yàlla ma xam ca waaja wëy murit bu mag ba moom belal ku bëgg sab la defal lii nu màggal borom belal bàyyi sëriñ Seexuna borom belal bàyyi sëriñ Seydi borom belal bàyyi sëriñ Abo borom belal bayu Cheikh Mamadan borom belal bayu si ñoom sëtu Mbàkke borom belal ñàkki caaxaan moo diw turam moo fonk Ahmadul Xadim la géey la def mu doon mburam naw naa borom belal mbooloo mi jërë ngeen jëf am na ba noppi yàlla nu ko sëriñ bi teel ndimbal nag ba mu amee ma nga tàmbalee ci maam borom Touba ndax it bëgg a bokk ci moom taxul nga bokk ci moom yàlla defal leen ay may ba Serigne Touba boole leen ci boppam te kenn ku nekk du njàmbaar goo ko defal du pas-pas boo ko wan xana ak gàttandu la suñu diggante ak ñom rek di leen jox bu baax seen jër bi leen seen maam jox te di leen ñaanal bu baax tay sakku ci yeen ñaan buñ jiitalee ziar bi ki nga xamni mom lañ ak ëlëk muy serigne muntaka mu serigne basirou koy ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko ci barke maam borom Touba maamam di ko ñaana sëriñ am di Moodu Mbend Fall mi fi nekkal jëwriñu maam Cheikh la di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko ba naal yi mu naal jëmee ko ci liggéeyal maam di ko jaaree ci sëriñ Touba. yàlla suñu boroom defal ko kàttan lu mu ko àggale di sant bu baax nag jëwriñu sërif Assane Fall di sëñ Amdi Xadi Fall di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko te wéral ko ba yéene jim am ci liggéeyal maam maam Cheikh Ibrahima Fall ak yeggale naali waajuram wu tedd wa Cheikh Sërif Assane yàlla na ko suñu borom defal kàttan lu mu ko defe te na ànd kook ñoom di jégg lu baax ci kàddu yi nag kàddu yi nag xam naa kàddu yu tënku lay doon rekk buñ ko jëmalee ci sëriñ la mi nga xam ni ginnaaw yàlla ak mbaaxu si dégg nañ kàddu yi fi jaar yépp muy kàddu yoo xam ni fenn rek lay jóge te fenn rek lay jëm ca yàlla lay jóge ca yàlla la jëmaat ndax ñi fi wax ñépp kenn ku nekk bi nga yëkkatee kàddu yàlla rekk a tax nga di ko wax te waxta yàlla tax moom moo koy nangulaat boppam di ko jaajëfal bu baax di seede seede yoo xam ne sama diggante ak moom ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ndax dañuy wax ni ak bokk boo ca defalee kenn defal nga ñëpp kon lim lim séq ak ñun njabootuk maam Cheikh Rafal gépp la ko seqal baax gi nekk ci moom dañ koy tënk ci ak taalibe rek taalibi gi nag moom lan taamu ci moom ndax moom yàlla sunu borom daa dogal sunu gisee ak moom ak sunu xamante ak moomit ci kaw yoon la te mel na ni li sëriñ bi doon wax ne ku jaar ci aw yoon di dox dinga nga dab li nga bëgg mbaa li nga bëgg dab la loolu nag moo nu dal dafa jóge ci ay yitte yàlla sunu boroom dogalit ñuy ñu jóge ci ay yitte ñu bokk fenn fu ñu jóge muy sowwu jëm si fii ci Touba ñu bokk waruwaay ban ko bokkee nag waxtaane kenn ku dul sunu yaakaar di maam borom Touba moo waral ab taalibe fu mu mën a nekk rekk li ëpp solo lépp del bàyyi xel bu baax ni sëriñ bi bi nga koy jox sa bopp dafa am lu taxoon nga jox ko sa bopp te mag ñi leeral mbirum maam Cheikh Ibra wax na ni maam Cheikh Ibra Fall dafa waxoon ni ab taalibe du rus day jomb rus nag ki ngay gis nga koy def waaye jomb nag mooy ki fi nekkul ak ki fi ne loo xam ne daal boo koy def da yemale ki fi nekk ak ki fi newul kon dangay daal di jël yàlla def ko muy sa seede te sëñ Balla mii man de xam naa ni bu baax ni meluma nen de te duma waneel mukk loo xam ni sama maam Cheikh Ibra Fall wanewu ko woon ndax lu ma boroom ndimbal la te ndimbalam day yokk loolu nag waxuñu ko ngir kenn du ni gis ni kii kat lenn la sëriñ bi dañ ko wax te yàlla tax ak lum jëflante ak ñun li ma ko wax léegi rekk am nan pas-pasu daal fii ñuy mënta di tal loo nekk dinañ ca nekk ak yow te di ko ñaanal bu baax nag ci doole maam Cheikh Ibra ndimbalul fii ñu jëm di fi liggéeyal sëriñ bi di tool yoo xam ni sëñ bee ñu ko xàllal saa su nekk ñu gàddu suñu gopp jëm fa lépp luñ fi bay yàlla naat te yàlla meññ te bu sottee yàlla nañ ko jariñoo tool yi nag mooy àdduna bii ñu nekk kër ga nag mooy ëllëg lépp luñ fa yanu di ko yóbbu yàlla nay doon loo xam ni lu nuy jariñoo la ba ca jariñe am bu baax mbégte mi nag ak cant lay lay tàmbalee ci ak cant lay yam njàmbaar gu sëñ Balla am rek waajur yee ko def ci moom waajur nag yàllaa ko tànn boole ko ak ñun ba tax na nun mën a mel rek ñun liñ war a fexe mooy ñu góor góorgóorlu ba mel nu leen gënal ndax ñoom buñ gënutoon ci ñun yàlla du nu booleeg ñoom sëriñ bi boo koy topp di ko roy da ngay xool fa mu jaar nga jëm faa jaar te sëriñ boo ci mën a gis ak nu mën a tollu ku war waa juróom lay doon kon ñun taalibe yi foofu rek lañ war a nekk di la sant bu baax nag di la sant bu baax man de am naa pas-pas sama diggante ak yow lépp loo xam ne daal ab cër la boo xam ne maam Cheikh jox na ma ko dinaa ko bokk ak yow dinaa taxaw fii di ko wax di wéet ak di ko wax da jël lépp def yàlla muy sama seede jërë ngeen jëf laa xawla wala quwwata illa billahi al-azim barke borom Tuuba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen jaar sëriñ Abibu xam naa dañ ñoo cërale kàddu gi rek waaye ñun macha allah mënuñ ci lu bari xam naa dañ la jox kàddu gi bu ko defee nga égalé ko jëf ñu sant bu baaxa baax di la gërum di leen seeral ni ku baax ngi nii as gor ngi nii pir man de wax dëgg yalla taxaw na ma zaay taxaw na ma baatin taxawu na ma guddi taxawu na ma ñi ma dëkkal xam nañ ci dara seere lañ ci moom soxnaam seer di soxna baax seere la ci kon ma ngi koy ñaanal suñu borom yok xéewalam yok suturam yok telangam ci barke borom Touba barke Serigne Cheikhouna Mbacké mi ngi yaakaar kon Serigne Abdou kàddu gaa barkeb Serigne Abdou Lahad barkeb sunu yaakaar tey ak ëllëg. ñu ngi siyaare bu baax suñ kilifa gi nga si moom lañ fekk fii. mu teew fi teewaayu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ñu ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay di siyaarit kilifa geneen gi xam teew na fi mu teew fi teewaayu Cheikh Ibrahima Fall moom it ñu ngi koy siyaare bu baax di ñaan ci barkeb Serigne Touba li Serigne Touba di séddale yàlla bu leen ci kenn ëppale. di sant bu baax daayira Miftaahu Saada ci njiital Serigne Ousmane Baaxum mii ak yeneen mbokki taaliba yépp waaye nag di jaajëfal sëriñ Elimane Touré ndax bu ñu tuddee Miftaahou Saada yaakaar naa sëriñ Elimane kenn jiituwu ko ca ndax li mu wax ni bin xamante ak léegi wala bin àndee jëflante ëpp na ñaar fukki at juróom loolu dëgg la di sant bu baaxit sunu jëwriñ sunu kilifa di sëñ Mouhamadou Mara Seck xam naa daa ni ci ay xat-xat waaye délégation bi moo ko war na jiite euh, di sant bu baax sëriñ Daaru Touré mi nga xam si yàlla daa dogal ñu dëkk dëkkin bu rafet ak sëriñ Abdourahim Seck moom sëñ la karam moom it ñu ngi koy sant bu baax waaye di wëlbatiku di sant daayiratu muhaarif bi nga xam ne si mooy fi ma bokk muy kër sëriñ naa moom Cheikh Abdoulaat sëriñ Papa Thiam teewal leen fi ñoomit it ñu ngi leen sant bu baax di sant bu baax sëriñ Bàcc juuf mii di ko seedeel ci kàddu yi wax wallaay laa sim day doon loo xam ne si lépp ci moom la ndax bu fekkee ni say waajur dafa nekk ci dëkk bi say bokk nekk fi ngay xeeñ ci mbokk bàyyi fa ñëpp dikk dal si ak yow te noonu moo ko waxee noonu la amee kon ñi ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Abdou li nga xam ne si yaakaar nga ko ci kër gi ba tax nga koy jeex yal na nga dajeeg loola ci barkeb Sëriñ Touba euh, Sëriñ la ñu lay sant bu baax ci bis bii ndax bis bu mel ni yëkkati ko yombul baaboog bu yombeet yeggale ko moo jafe te ñi ngi ñaanit ci barkeb sëriñ Abdou Lahad nga yàgg koo def lool waaye nag di sant bu baax say kilifa yu jigéen yi muy soxna Nogay Njaay buñ ko tuddee dañu yobale ñu bari ndax doonoo xawa bari fa fa tabaarakallaahu xam-xam ba werna moy domi Cheikh Bamba mu ngir wilaaya ko koog diraaya moo raw ca gaaña moo raw ca gaaña muy mufti Bamba ko diraaya ku sopp Cheikh abdullah tabakh moro cegaaña moro cegaaña mooy mufti Bamba ku sopp Cheikh Abdoulaye ta moo yor wilaaya moo le góog diraaya moro cegaaña mooy mufti Bamba naa sant yàlla asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp ak mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi sunu sëriñ sunu xarit di kilifa jataay bi di sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad tey muy sëriñ Touba ci jataay bi mu teew fi ginnaaw yàlla ak kóllëre ak bëgg lu baax sabab bi jaare ci suñ jëmm ji bon mënuñu fee yëkkati genn kàddu ci siyaare ko Mbàkke ñu ngi lay siyaare bu baax noonu lañuy ñuy ndokkeele kilifa yi nga xam ne ñoom laa àndal ñëpp ku ci mel ni Baye Gala soow mii nga xam ne damay tijji rek di waxtaan ak ñoom ngir luy doxal ak mbokk ak lu koy rafetal yow mii de royukaay nga ci ndax nii nga mel ñii nga fi dajale di góor yàlla yi toog ak soxna yu taaru yii nii ñu toogee ak ni ñu ñëwee wone nañu yëg gu ñu am ci sa jëmm ji waaye lépp yaa leen ko ji ba tax na sëñ Balla ñu ngi lay wax gàcce ngalaama ñun nag dañoo génn ci fanatisme dañuy dund ci xaqiqatul islaamiya nga xam ne Serigne Touba dong ñu ñor yenente bee ñu ñor luy lu baax buñ ñu ca woowee kenn duñu ca man waaye lu dul loola amuñu ceg defar amuñu ceg yàq ñu ngi lay sant di la gërëm teew fi ci turu and taxawu sa doomu rew yoruma senu kaddu gàllo la so lañu jox mu yëkëti sen kaddu sant mbolo mi gërëm leen nuyu mi fi dajje ñepp ci turu borom bes bi di nuyu señ bi ci eh, sama wet di ko siyaare di ko delloo di yegal nit ñi ci fuñu jëm pour ñu xam ndax buñ ko dana ñu yaakaar ne mën na am ne foo maanaam mbiru politique la wala leneen ànd taxawu sa doomu réew dañu ko bëgg yaatal yaatal boo xam ne Touba gi ñu dëkk moonu gënal lu ñu mënti am eh, jafe-jafe yi ci réew mi kenn ku ne xam na ko jafe-jafe yi dara jiituwu ci maanam ñun ñi nga xam ne ay baadoolo lañu béykat lañu suuf si moom lañu bëgg suuf si baykat yi kenn ku ne ñu nga am kayit sa suuf bi nga moom moo nag day mbooloo moo xamante ni dafa daj senegal gépp ci commerçant yi fi nekk yëpp dëkk bu ne ñu tànn jëm jiital ko yàlla dogal moom ñu tànn ko fii Touba mu jiite mbooleem commerçant yi ci Touba yëpp ay jëfam nag ràññeeku na lool ci dëkk bi ak taxawaayam bokk na ci taxaway bi ci mujj rek moy ku dugg biir marché Ocass gis nga mbedd yoy ñu fa tambalé muy projet bo xamanteni bi nga xamé né marché yag nañ ko bëgg ta fu ne ñu ko fa mu teleen mom mi la yalla dogal bin kon falé président Assis mu and nak mbolo diko dox ba suñ borom dogal loola mu sottee ci ay loxom muy yoon yoy président Macky Sall def kon bim ñëwé and nak ay mbokkam ànd ak ay mbokki commerçant ci bis bi nga xamee ni sëñ Balla Ndiaye moo ko ko tuddee dara jaal ko ko muy bisu cant sëriñ Touba mu ànd nag Serigne Saliou Xumma Serigne euh, Cheikh Diaw Serigne Cheikh Xumma Serigne Baye Modou Diang Serigne Ahma Serigne Amsatou Serigne Katib ànd nag daal euh, ci bu buggumaa jum daal ànd naa lu tolloog dix personnes ngir teewe bis bi li tax nag ak teewaayam li ko waral mooy jëmmi sëñ Balla mii sëñ la daa doon gone nekk ca marché ba ñëpp xam ko ci yaru baax nungoo liggéey te dama jàpp ni nungoo liggéey nungoo jaam yàlla te sëriñ Touba wax na ni alxamalu wal eh, alilmu wal xamalu jawharaani sëñ Tuubaa nee na li gën a taaru ci àdduna gën a rafet nee na mooy jaamu yàlla ak liggéey senegal gi ñu nekk li koy mën a tax lépp jag tegu ci aw yoon mooy ndaw ñëpp dañuy dellu ci dem liggéey sa dem jaamu ci yàlla loolu moo mën a defar moo mën a defar yi ak américains yi nga xam ne dégguñu diine sax lay defar seenum réew weesuwut lu dul jaamu lan gëm boole kook di liggéey kon Balla buñ ko xamee ci côté boobu ak jom jooju tey bis bi mu tuddee ko suñu président bi mu woo ñu ñun ñëpp ñu ànd ak moom ngir teewee ko bis boobu noonu kon na ngeen xam ni Balla ndaw la loo xam te ni liñ ko xamee ca marché ba mooy jaamu yàlla liggéey am jom doon nit ku yaru ami teggin. tuddee ba léegi nag euh, depuis màggal ge ba léegi mi ngi ñuy soññ ñun ñi nga xamante ni moom lañ nekkal di ànd ak moom ci liggéey bi di liggéey bi lépp rafet. Balla nag tuddee ko bis bi li waroon a ñëw ci délégation buñ ko indi woon xajut ci baas bi waaye ñëpp xam nañ ni ci waxtu màggal lañ nekk dëkk bi xaw naa xat ñu bari nag nekk ci seen yitte waaye ñun ñi nga xamante ni ay rakki boppam lañ ak ñi ñu àndal mun ñu ñàkk bañ a teew ndax lu mu nekk kat faaw ñu nekk ca. di jiital ci délégation bi ñu àndal muy Serigne Saliou Xuma Serigne Djili euh, Serigne bay Modou Dieng ak sëriñ axma ak euh, sëriñ Kaatim mi ñu àndal ak sëriñ Mahmoud gay mi nga xamante ni moom fii la dëkk ci koñ bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla taxawaay bi lépp rafet kenn ku ne dagg ci yitte ndax ñi nga gis ñi ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku ne boo koy ak mu la war a def waaye ñëpp dañoo bàyyi seen temps ñëw ngir galas mi Balla nag jël bis bu rëy bi tëddee ko euh, galas mi nga xamante ni suñu fa la euh, di ko rafetlu bu baax a baax a baax nekk président assis muy mboolem commerçant yi nga xamante ni ñoo nekk li wër Touba lépp Euh, comme nekk nag association boo xamante nag euh, seen i yaakaar naa képp kuy suivre ah, réseaux yi na nga xam seen activité bi ci mujj rek mooy màggal Touba gi ñu génn muy mbale mi def ci yitte ji am solo muy commerçant yi xam ne ñoo nekk Touba ñëpp euh, génn lu tool ak 5 millions def ko ci biir dëkk bi muy bi nga xam ne ay ndox dañ faataawoon taawoon toog ay xewal jox ko nit ñi bale marché ba la ko wër ba mu set wicc beneen ci topp mooy projet bi nga xamanteni ñom yag nañ ko bëgg di top muy problème mu muy marché bi euh, ginnaaw bi ko yalla dogalé le président de la république Macky Sall wax ni dafa bëgg gisé gisee commerçant yi marché occasion mu xamal leen ni man politique ma waaye nag ba li nga xamanteni moma war dina ko def muy bam démé muy benn yitté la ko wax moy marché occasion la bëgg ko ñuko défaral ay tëli défar ñu fa ay lampe bam leer nañ président and ci ak ñom wo ñim wara wo ñep ba procès taxaw na ma ngay dox kon mëna na fa dem nekk fa muy ñeneen ñi dëkk bi kenn wona xam na muy doxee mëna fa nek neneen nu bokku tok may mëna na fa dem dox fa ay projet bopam mais bam démé demee man marché bi moma ñor kon ko xam nga ni kon ku ko dénk leneen lu euh, euh mu jitté ay commerçant yalla dina ko dimbali mu du nag lim nek suñu mag rek mo tax ñu sédd ci la waye yag nañu and muy bu mu jiitee association bi légui ñëpp dañu takku and ak mom lu mu wax ñu ni ko nonu la lu mu def ñu ni ko baxna Balla Ndiaye nag bis bi nak yow xam nga ni délégation bi ah, waron and ak président xam nga ni xaju fi ñëpp bu ñëwoon waxuma la waaye oto guddi na nag waaye ñu bañ a guddal euh, di sant ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal ñu bàyyi seen yitte kenn ku ne am nga loo war a defe ñun ñëpp dañoo dagg seen yitte ñëw ànd ak Serigne Fallou euh, lii nag lu rëy la lu kawe ci ñun kon dafa mel ni tuddee ko Serigne Fallou waaye ñun du ko tuddee ñu ñi ay rakkam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu nekkay ba nga nekk ak ñun man sax nag rafet loolu nag ñuy kaf di ree kenn wax di yàlla di demlante di dikkante loolu nag yàlla ko yàlla euh, a jëmale kanam barke Cheikh asalaamaaleykum damaa mënut a wax nag waaye nag pour sa xalifa wax loolu nag faaw nga wax jërë ngeen jëf. waaye sëñ Balla sëñ bi nee na ñu ngi lay sant di wut daal yàlla bu déwénee bu kenn manqué ci barke sëñ ba sëñ matana lépp ndax ni ñu ni ñu waaye rek sëñ bu ci jëmm ji rek aaju mur yëpp saafara la ndax moo fi sëñ Abdoulaye fii ci jataay bi waaw. lu ñuy wut daal loo bëgg daal nga ñaanal ñu ko taalibe yi ñu poose am dara am xaalis bokk ci biir laa deri sëñ Tuubaa yi ndax boo ko ñaanee rek sëñ ko def ndax sëñ Baye Cheikh mii de sama xarit maa moom nga ñaanal ko baax a baax fii fi géwél yi àgg mu àgg fa ndax ndax moom ku baax la ku dal la ku teel ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom moom sonn na ci bis bi lool moo ngi ko ànd daaw kàddu yi daal du gudd daal li ci des daal nga ñaan bu baax nga ñaan bu baax a baax jërëjëf seen yoon mi ñu ngi seetlu ñu nga xam ne ñu ngi tuddee bis bi kontaan nañ ci lool te kàddu yi ñu ñu ngi fiy def daal rafet nañ ko baax a baax ndax loolu ki ñu wax seen ngoon moom moom moom moo ma yëgal bis bi. mooy nga nekk ci am ak cër bëgg na ma ko ci te moo ko teeloon ne xam dama ci ñëw ko bañ a joxe ndax lii baal la wax man am na ci lu ma xam ndax mën naa ne maa ko yar maa ak sëñ bi ñoo bokk dëkk moom mi moom moom mii. man naa cee wax lu leer sama digganteem ak sëñ bi ñoo bokk genn kër gu nekkoon ba ni mu fi jógee kon bu yàlla dogalee muy def bi sëñ bi waaxu ñëw ak si fii kon loola yëfama seq ko kenn te wóor na wóor na jëmmi sëñ Ablaat man tëddoon naa moo ma fëgg ne ma mor ma ne ko mbàkk ma ne bi sa bàll ba ne mënu ma saa ñàkk bañ a dem gan ñi daaleel fii bàyyi dem waaye nag bu ma demee yaa may dimbali waxal ma xam gis nga lima ma fi baye kan ñàngatoo ko wër na sëñ Tuubaa ko nan ànd dem ndax man mi at mu jot Balla wax mako musuma ci cee waye tay ji fasiyene fas yéene ko dinaa ko xaar ba ginaaw su ko ma doore a man ka bëggee la nek kër bla Karam Balla mi xam na ma xam na ko mako yar ke sëñ cheikh gi la nek kon li mu wax ni mat ci séré kon dañ lay ñaanal yalla na borom guddal saw fan guddal fan sëñ bi bu ngeen bokk yeen ñep dara darajee sëñ bla man dey kontaan na sama xol sedd na sëñ bi nag nee na moom eh, ngërëmam moom sa digganteeg moom kawe na njortam nee na mu ngi lay bàyyi ak sëñ Blaat daal mii borom bis bi yàlla na saa borom defal loo kawe sa njortam dara jëy sëñ Blaat jërëjëf kon ngeen dégg loxo yi sëñ bi ñaan min mbakki min mbakki min min mbakki min amin من من بك ترجف بك رأي leen الذي في كل لزهر وفي سفر أماني على ماهن مع الحبس وأسفر